terre bi mënoon na taxaw pendant deux semaines mais dañ ko reprendre waaye bii yoon ak ay précautions moo taxoon ngeen gis retard bi xam nga ñi ñi tàmmoon nañ fukki minutes yu ne benn train yegg si ñu dem ba ba doon na del 20 minutes peut-être même 30 minutes loolu nag euh, li ko waraloon mooy ay mesures de sécurité la ndax ñi doon defar train bi terre bi dafa am ay euh, yenn maanaam décision wala yenn

nga surélevé ko nga yëkëti ko ba mu koyee ba nga xam ne duñu du am ay jafe-jafe ëllëg mais li gën a doy waar mooy biñ ko fa defee nga xam ne def nañ fa lu tolloog 700 millions defuñ ci sax mur de protection alors li muy firndeel mooy suñuy liggéey ci ay chantier yooyu ci conception bi ba ci réception bi dañ ci war a ànd ak rigueur bu mag am na yenn erreur yoo xam ne kenn waru ko def donc équipe yi ci doon liggéey ñoo def erreur yooyu jural nañu perte 700 millions waaye tamit jural nañu incident yi ngeen gis ci terre bi ba tax na tey reprendre nañ ko ba daanaka Dakar ba yëmbal chaque dix minutes la comme avant yembal ba jam ñaajo day rester chaque 20 minutes le temps que ñu remplacer yi ci yàqu yëpp te ñi ngi koy def te am nañ yaakaar ne fii ak ñaar ba ñetti ay bés terre bi dina revenir à la normale mais leneen li loolu mooy ci saa si matuwaay yi ñuy jël mais dafa am loo xam ne tamit dañuy fexe ba jël ay matuwaay yi ñuy woowee des des des solutions structurelles yoo xam ne day tax ba fii ak jëmmi jamono problème boobu dootuñ ko am mooy lan mooy jël poste bi tabax ko ci étage dinañu jural nag lu tolloog 600 millions daanaka waaye équipe bi ci seen xarañteef waxtaan nañu ba waxtaan ak assurance bi ak seen conseil juridique ak yëpp ba assurance bi dina nangu jël ko en charge donc état du Sénégal du ci dépensé waat